ci turu opérateur économique yi jóge ci daara yi ak turu opérateur économique yi ci Sénégal yépp ndax en tant que sama qualité président de l'union des chambres de commerce te ma jànge ci daara ji maa ngi nuyu ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di nuyu Serigne Makhtar Lo ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo koy jàppale ci liggéey bi di nuyu ministre Ndeye Saly di mbokk ci kër gi président Macky Sall yabal ko fi mu ànd ak Awa Gueye président assemblée nationale ànd ak député euh, Awa Niang ak Mbéri Sylla di nuyu moom laa wakkoon euh, di nuyu maire dëkk bi Pape Diop ak chef de village bi Cheikh Diop di nuyu gouverneur ak administration territoriale yi ànd ak yëpp di nuyu ñu fi nekk ñëpp di leen dalal di leen wax ne li alxuraan di wax rek rek yaa ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li maa yuhyikum di gërëm ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci daara ji wala dañ fi dañ fi nekkoon wala ñu fi jaar di wutal daara ji loo xam ne nii lu ñuy dunde ak lu yor daara ji mu nekk lu am solo yan ko sante waaye yàlla moo wax ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa waa khayru raziqin ndax yàlla moom loo ko jox mu delloo la ko te bu la koy delloo da koy jox na mu gën a rafet ñi koy def tamit gërëm leen ndax Ah, addaaloo alal xayri ka faa'ili mooy li ñuy def comme li oustaz Alioune Sall def fii léegi ah yaakaar naa moo ci ëpple tuyaaba ci ña ko def ñëpp ndax tuyaaba yi ñëpp lay bokk ñun nag ñu jóge kokki tey ah daanaka dañuy soññ suñ bopp rek ndax ndegam ñi fi jaarewul woon ñoo jóg tey yor seen tànk yor seen làmmiñ di dox di wutal daara ji waxantuma la ak ñun ñi nga xam ne nii bi ñu fi suñu waajur indi dara waru ko ci daara ji ñu di ñu jàngal alxuraan di ñu dundal di ñu faj te normalement ku lay jàngal yaa ko war a fay wala ëllëg yaa ko war a fay ndax man allamaka harfan fa huwa mawlaaka ku la benn araf rek ku la ko jàngal sa kilifa la a di wax rek sëñ ndax seede munta ñàkk di wax ci sëñ Maxtaar ndax sëñ Maxtaar ñun dañoo ñëw fekk ko ci daara ji mu nangul bu baax sëriñ bi kenn ku nekk ci daara ji ku mës a dégg sëñ Maxtaar am na weranteeg sëñ bi dara walla sëñ bi wax ko dara ndax ay taalibe moom léeg-léeg dañ daan tëradi daanañ def li ñuy def ba pare dikk jiitu ci sëñ bi wax loo xam ne nii te sëñ bi buy wax musuñu dégg mu teg ca baat ñii fi nekk tamit topp ko noonu lañ ko toppee ah mu nekkoon koo xam ne nii tamit mu nekk ah, ci jamonoy sëñ bi ñun musuñu ko gis muy ah, di jege jotaayu sëñ bi ñun donga yi dañ daan wër sëñ bi waaye moom musuñu ko gis sëñ bi toog mu toog ci wetam bu sëñ bi toogee rek ma nga ca leneen kon loolu ñun dañ ko koy seedeel ah di ñaan yàlla yàlla guddal aw fanam wàcc ko fi ndax wa amma ma yanfa'u naas fa yamkus fil ardi te amal na njariñ nit ñi mooy ku amal njariñ nit ñi rek yàlla dana guddal soo fan beneen bi ki topp mooy ñu wax ci sëñ Ahmad Saxiir lii ñuy woote tey fii ci kokki di wax unité islamique ah yaakaar naa moom ba mu ko théoriser kenn xamul kañ la ndax daara ji yépp xam ne ñépp fi daan daje tarixa yépp fi daan daje kenn ku ne boo ñëwee dalay bàyyeeg sa tarixa musu fi jéem a wax kenn ko fi dikkoon sax du wuyoo daan wuyoo saw sant wala saw sant maam ñu ñëw naan la wutal la baykat daan la déedéet wuyul sant ba nga daan wuyoo ñun fekk nañ ko li koy joxe exemple mooy bu gàmm masaana jot daawul wax na murid yi dem fii tijaan yi def yi laayeen yi def yi def ñu daan dajale kenn ku ne jàng boo paree jox sa morom jàng ñun bu ñu fi nekkee xamuñ woon loolu waaye boo fi jógee dana la wax ne foo demeen lu ca say maam nekkoon nañ ca nekk ah loolu kon lii ngeen di woote tey moom moo ci jiitu kon nag mun ngërëm rek lañuy def ndax dañ ko fekkoon mu ñëw fekk fii ki ko ki nga xam ne nii moo fi njëkk a def dara muy alaaji Maxari Géy nga xam ne ni kuy deg da ngay yokk ci moom dañoo ñëwoon mu fekk mu defar daare ji ay étage moom mu dëkkal ko cim néegu ñax moom mu dëkkal boppam ci néegu ñax moom mu dëkkal boppam ci nekku ñax ba bi mu fi jógee loolu mooy li nga xam ne nii ñun daf ñoo marke mooy kokki li mu doon metti metti ndax metti gi moom xëy na metti jàng la ak metti bëgg lekk ku neex waaye du daawuñ fa xiif te sëriñ bi daana wax ne daara dara yàqu ko xiif yàq ko rafle yàqu ko ñàkk jàng rek a ko yàq kon ñàkk jàng rek ko yàq te jàng moom daanañ ko def moom tamit ci boppam ah daana daa lu ñu metti lu ñu metti mëtt moo ñum gënoon a metti li looloo tax mbëggeel gi nekkoon ci ñun kon nag maa ngi gërëm ñëpp damaa jëloon kàddu doon leeral lu bari waaye ñun lépp lu ñuy def ci kokki dañuy fay ay bor te incha allah ah yaakaar naa ñii fi nekk di jàng tamit bu buñ fi jógee tamit daara ji moom li alxuraan di wax ni inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la haafizun yaakaar naa daara ji yàlla moo koy wattul boppam Eh, te incha allah dana ko wattul boppam ba ilaa yawmil qiyaam wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu eh, jërëjëf eh, Serigne